asalaamaaleykum téléspectateurs u télévision Futur Média asalaamaaleykum le monde entier particulièrement clientèle mondiale couture yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wax nag na ngeen ñu xaar ci mode tabaski 2018 defoon nañ ko daaw fekkee déwén ñu war a baaxantal mondial couture nag war a ñëw en force ci ni ngeen ko xamee war a indi ay fem yu bees tàkk ay création yu bees tàkk caw sa xiir yeeg fël-falaa lay fu ne kon nag sama gars yi c'est un rendez-vous à ne pas manquer ici sur la TFM et nulle part ailleurs. salaamaaleykum waa Sénégal waa àdduna ñu ngi leen di jaar yéen ñëpp di leen wax ne leen borom Sambène Couture mu ngi leen di woo ci mode tabaski 2018 sur euh, TFM di leen wax ne leen maa ngi leen di invité yéen ñëpp sama client yi maa ngi leen di xaar. asalaamaaleykum mën la Ndang njaay madame Kane borom complex Jinda Couture fii si euh, Golf Sud. maa ngi jox ñëpp rendez-vous foofu ci moddu tabaski ak waa TFM ku bëgg a xool yu baax yi may def ak modèle yu bees yi ma génne rek nag ma ko ci à la TFM ci moddu tabaski ak Boubacar Diallo foofu ci place euh, souvenir asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi leen di jox rendez-vous dig daje 2018 mode tabaski ngeen pare ko yéen ñëpp client yi maa ngi leen di jox rendez-vous ngeen pare ko jàpp si sama client yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar ngeen waaj ko ah